jigéen ju sàkku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xaq yàlla jigéen ju sàkku sa ngërëmal jëkkër ba xaq yàlla taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba xaq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wàjjur ba xaq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wàjjur ba xaq yàlla wàjjur ji du la jëriñ dara wàjjur bi du la dara sëriñ bi du la dara jëkkër ji dara la la du loolu na ngeen ko xam. bàyyi mu ne loolu nañ ko xam. yàlla jiitu ci jaam bu nekk. jaam bu ne. yàlla jiitu ci yow moo gën a xëy ñëpp ci yow. yàlla gën a xëy ci jaam bu nekk.